Ndeysaan arbitre bi ñu waaj a sifflé ci plateau B dox ci diggante Fatick ak Dakar Dakar ceinture rouge Fatick bleu Dakar Tony Junior Fatick bandi 40 ans ndeysaan plateau de Dakar daanaat na bu a arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ñu ñëw finalu de l'état dañuy laale tey individuel ci compétition yi suba dinañ laale waat final bi dox ci diggante Bandit 40 ans ak Tony Junior ndaysaan Tony Bandit 40 ans bañ na Bandit 40 ans Tony koy biij Bandit bañ na Tony Junior Bandit door na ko tànk daan na ko Bandit 40 ans daan na Tony Junior ndaysaan Témi tay kenn xamul lan la Témi kenn xamut lan la rek tay kenn xamut lan la rek Doudou Sané yëngu na yëngu na da nga a laale tay war a laale final bi Doudou Sané yëngu na Doudou Sané yëngu na ndaysaan du ngi jàppale ci bis bi merci le sëñ Fallou Mbacké merci à sa délégation qui a accompagné Abdou Diagne Abdou Diagne pour ñëw fi tey jàppale Serge bu Diourbel sëñ Fallou jërëjëf Abdou Diagne merci beaucoup mais merci également à Madame Mbaye ñoom la Ndiaye ayok ki la Ndiaye ca Mbacké Bawol elle a réussi tubaarkàlla par le président des amateurs et bopp le président des amateurs Abambe Diao. andi 40 ans tollu ci yoon. ñu ngi lay tege troisième combat. de l'état par équipe. Bandi 40 Tony Junior. Bandi 40 Fatick Tony Junior Dakar jàpp na bandi 40 ans bandi 40 ans Tony Tony jël sol na bandi 40 mbot na ko bañ na bandi Tony daan na ko daan na bandi 40 ans Tony daan na ko Tony jël na drapeau chef de l'État Tony na Dakar jël na drapeau chef de à dernier moment génne ci drapeau chef de l'État ici à Diourbel Tony ndeysaan Tony ngi noonu noonu Tony noonu Tony noonu Tony noonu Tony ngi noonu ndeysaan ma ngay kàppar ma na Tony kàppar na rëkk na om yo ci suuf.